silmaxa yi nga xam ne dañoo dëkk ci dëkk bi te yàlla dogal seen nekkuwaay li ci ëpp di ndakaaru yàlla dafa dogal bi déggee liggéey bi mooy lu ñu rafetlu ndax kenn ku ne amoon nga yéene boo ko manee nga lamb ci sa poos lu war ci dëkk bi nga def ko su fekkee loolu amul nag ah yàlla dogal ko sob man man bi demewul noonu ñuy def fu ñu daje ñu laaj fa lu waaye am ñu dajale ko ah nu mën a toll ñu di ko dajale ah ba matub lim bu ñu indee ak nu mën a rek ñu di barkeeloo ko ci liggéey bi ah ndax li wax li wax noonu mbaam gàtt na waaye ci yur gi la bokk ndax nun ay taalibe lan te dëkk bi rek lan am te bu nu sañoon it fu ñu yëkkatee dëkk eh, lu yëkkati dëkk bi rek ca la ñuy xëy ca la ah, li ñu am nag li muy néew néew ak lu muy bari bari ah ñu di ci coppati di ci dugal ci liggéey bi sëñ Tuubaa bi ndax dara nekku fi ci àdduna du liggéey sañ Tuubaa liggéey sëñ tubaab rek moo fi nekk te comme ay taalibe lan lu nu war mooy lépp lu jëm ci dëkk bi rek loon ca man ñu di ko def ngir yàlla ak jëmi sëñ Tuubaa yàlla dogal nag lii ñu woon ko ñu ne woon comme ñëw nañ ci kaasu rajab bi ah bala ñoo dem nañ ko joxe ndax eh, jamono neexut li fi teew bariwut waaye nag nan ko jébbale ndax bu demet ah du ñàkk fu mu mën a mu ngi nii defe naa ñaar fukki junne ak juróom-benn bu sëñ bi nga seetlu ko kon defee gars yi maa dal ñoom it ñoom maag ñoom ñoo bokk liggéey bi ndax ñoom it ay jàmbaar lañ wax de yàlla kenn ku ci nekk yaa ngi ci def sa kéemtalaay kàttan su ko defee ñoom ñu dugal ci seen kàddu ñu ngi doon nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant di ñaan Seex Muntaxa yàlla ko sama borom ko fi lool mu yàgg noo diggal nu yàgg jëf bépp liggéey ba mu semb yàlla ko sama borom àggal te ñu ànd ko moom nag ni ko suñ jëwriñ ji waxee muy sëñ Taala Njaay noonu rek demee noonu li ñu néew néew doole bëgg nañu lépp lu yëngu ci kër sëriñ bi ñu def ca suñu doole jeex tàkk donte la ñëpp man mënuñu ko it ñu def suñu doole jeex tàkk loolu moo indi ci biñ ne Touba ca kanam am na te Touba ca kanam kenn war ci jiit ab taalibe ñu indi woon fi aw sas daaw jéeg daaw nu am ay gàllankoor ba ñëwoon moom mooy saw ñu ñëw ñii tey indi ko waa nag li muy néew néew noo ngi ñaan sa borom defal nu fekke waat ko te jàpp ay xéewal bay li ñu indi ren bu dee ñu am lu ko ëpp